D'accord. Et euh, juridiquement, politiquement, moralement, en ce qui concerne l'amnistie de Karim Wade et euh, c'est vrai que quand on annonçait ce projet d'amnistie-là, cette proposition-là, euh, bi nga xam ne dafay concerner pratiquement ñëpp ñi nga xam ne seen droit civique et politique jamono ji dafa xaw a euh, yorewuñu ko si ak ak ñoom ñu xool nu ñuy def ba def benn amnistie amnistie bi boobu est-ce que yow en tant que spécialiste ànd nga ci. waaw xam nga dossier yi nga wax dama ko yàgg a suivre surtout bu Karim Wade bi maa ngi fàttaliku sax que Paris defoon naa fa conférence bu rëy sur l'impact de l'avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire euh, donc mooy ba ñu condamné État du Sénégal commission ba nekk Genève ne dafa salfaañi ak ak yelleefu Karim Wade que dañu ko war a réhabiliter indemniser ko ca laa defoon conférence bu mag Paris pour expliquer njeexitalu avis boobu d'une certaine manière ñoom ñi di wax tey amnistie li ma doon wax yëpp dañ doon fëgg seen dënn ne loolu dara amu ci tout ça fàttaliku leen am na benn magistrat bu dem conseil des droits de l'homme ñu posé ko question bi experts yi wax ko yëfu Karim wàdd teg nañ leen abi xam nga ko euh, groupe de travail bi ci conseil des droits de bi la bokk mu ne leen mais yéen abi bi joxe nañ ko daaw mbirum Karim Wade foo leen ci tool fonctionnaire bi di nit ku xarañ ku am Pastef ku gëm droit ku nekkul ci politique ne comme yéen seen dogal daanu na te ñun ci kuréel gi la ñu bokk Sénégal dana jéem gëstu xool ci yan anam la ñu mën a réhabiliter Karim Wade lu am la wala lu amul. Mhm. yéen a ngi koy fàttaliku. mais kooku ba mu ñëwee fii lu nekk yëkk nañ ko ci yekk nañ ko ko ba jëlee ko fi sax ci palaasam mais ñoom ñi di wax am amnistie tey war nañuy dem seeti kooku baalu ko jox ko ñaari loxo sukkal ko parce que moom deful dara donc tey ñoom. seen défaite la. ñu dem bay wax mbirum amnistie d'une certaine manière. mais est-ce que véritablement ça doit être amnistie forcément. non parce qu'il y a d'autres canaux. xam nga peut-être pour les euh, réhabiliter. mooy li ma wax rek. bu ñu toogee fii tey. di wax mbirum amnistie mooy ñaari yoon ñaari mbir. bu ci njëkk moom mooy dañuy jëm a xelu Sénégalais yi benn. ñaar moom mooy balaa ñoo wax mbirum amnistie. nañu jëfe dogal yi nga xam ne moom ñoo daanu sur le plan international tey Karim boo avis bi jotee génnee euh, ba laata ñoo def conférence wala bañ koo defee jot naa ko Ablaye wadd gisante nañ këram Versailles plus de deux fois maa moom def nañ conférence bu mag gis ngeen ko Paris aussi sur euh, l'état euh, de la démocratie sénégalaise mu nekkoon conférence bu am ci yàgg naa ci waxtaan ak ñoom tey lu Karim wax moom mooy lu mu waxoon démb yaa y' a quasiment quatre ans parce que jotoon naa ko téléphone ñu wax ci réhabilitation bi ci boppam moom la groupe de travail bi waxoon dafa ne Karim Wade dañ ko war a réhabiliter benn yaa ngi may dégg ñaareel mooy dañ ko war a jox ndàmpaay ba ma ko waxee même état bi ñenn ñi sax dañ doon naan à la limite mën nañ ko réhabiliter mais yëfu ndàmpaay moom bu leen ko wax mais ñaar yi benn bi mënul dem sans beneen bi bu buñ la réhabilité booy dañ laa tooñ mm-hmm. te buñ la tooñ foog ñu jox la ndàmpaay donc moo tax bu ma déggee ministre de la justice di waxee nen nit ñi daf may jaaxal <laughs> damay nemmee ci droit lay wax wala leneen lay wax parce que bu ñu fawee xelu Sénégalais yi d'une certaine manière. Mm-hmm. mais est-ce que mënuñu ko jaaree peut-être aussi ci pour ne pas enrôler ñi nga xam dañoo def détournement parce que amnistie il s'agit de. waaw dama dama dama ci voilà foofu laa doon bëgg a yegg si maintenant ñoom technique juridique bu ñuy présiser man ci lu ma gis man. ça n'engage que moi. loolu laa ko jàngatee. Euh, lu ñu bëgg a def moom mooy dàq ginaar wax sa soxla. Mm-hmm. lu olof di wax maanaam tey. li nga lu ñuy tuumaal Karim Wade yàgg nañu dégg opposition bi di leen ko tuumaal ñoom ay wala ay pàccu opposition bi ay nit gis nañ ko ci mbirum pétrole bi gis nañ ko ci mbirum yeneen tey gis nga lu procureur ndaw wax ci mbirum patrimoine bi euh, gis nga comme ni ko waxee on amnistie des faits donc xeetu fee yooyu yëpp boo leen jëlee daanaka maanaam lu ñu doon jiiñaate ak lu ñu leen di jiiñ Euh, même chose la ñoo bokk donc buñ ko vise woon ci benn loi d'amnistie daanaka lépp lay effacé peut-être mën na nekk luy dalal seen xel <laughs> parce que moom peuple bi voté woon 2012 ne non troisième mandat peuple boobu génnagul Sénégal donc moo tax ma jàpp ni man au fond sax affaire amnistie bu ñuy wax man li ma jàpp mooy gëmuñu ko man li ma gis moom mooy stratégie communication la woon am na ku nekkoon seen wet jën commencé dëkku kooku gisoon nañ ne moom moo nekkoon ministre de la justice ba mbir bi pour naqaral ko mettital ko ba pare créer benn contre-feu mu ne saa waaye jëm leen étudier xam nga si boo koy def jarul tàggoo amnistie boo koy def jarul tàggoo on se rappelle 2005 mm. je pense. Oui. loi Ezzan. tout à fait. fii loi Ezzan. Euh, loi boobu ndaam souvent dañuy wax sur le plan juridique. que on amnistie des faits. mais xam nga juriste moom euh, donc technique juridique la. mën nga jël ay faits nga calibrer ko ci benn loi. Mm-hmm. maanaam doo tudd nit ñi mais. loi bi day impersonnel ji am généralité mais xam nañ ne loolu la parce que dañu wax mbirum assassinat wu Babacar Seye de telle période à telle période mm-hmm. wax loolu la période aussi elle est importante elle est importante mm-hmm. ratio spatio temporel matériel maanaam ci ban matière la ak ba wala ba yan fee lay topp ak personnel mais souvent personnel bi dañu koy bàyyi noonu mais nit ñi dañ ci gis seen bopp parce que ñi nga xam ne ñoo impliqué ñoom rek ñoom ngay mën a répondre foofu hmm. par contre mbirum difficulté bi mbirum deniers publics mooy li ma la wax tey maanaam tey bu loi amnistie jàlloon euh, peut-être ñoom mais d'ailleurs Karim nee na bëggul hmm. je sais pas que ndax ñun dinañ ko forcer ne ko dañ day amnistie par la force mais mais ça doit euh, passer par l'Assemblée nationale ça doit passer par nationale hmm. mais xam nga amnistie moom nga bëgg nga bañ bu dee ñoom am nañ volonté def loi mën na jàll même bu dee yow bëgguloo c'est effacé day dem comme grâce d'ailleurs waaw grace bi waaw grace bi voilà c'est-à-dire c'est mesure mais ñoom xam nga ba ñuy gracier euh, tooguñu fi lépp guddi lañ ko taf-tafe mu jeex hmm. dëgg loolu dëgg bu ñu toogee njolloor biir conseil des ministres xam ne ñëpp a leen di dégg yokk ci communiqué hmm. moom mooy am na leneen lu ñuy viser lu nekkul loolu lan la ñoom rek ñoo ko xam ñoo ko poursuivre mais lu ci kanam rawulu bët. njortuwoo dara yow. man li ma njortu wax naa la ko. maanaam prox ndollu la dañ ci bëgg a dugal affaire yi comme ça ñu solde mbir mi. man noonu laa ko gisee. Mhm. ça n'engage que moi suma lecture la suma droit la. par contre comme lu ma la wax euh, tey muy décision yi nga xam ne moom la CEDEAO rendre. muy décision yi nga xam ne moom le groupe de travail rentre pour Karim Wade mais aussi Khalifa sàll gisante na ak moom waxtaan nañ ci ci mbirum décision yi yàgg ma jox ko suma point de vue ak li ma gëmoon ne moom war na ko mën a def mu laaj ko état du Sénégal mais loolu tey ñoom ñëpp am na ay décisions yi nga xam ne dañu ne ñii dañu ñi seen àq ak seen yelleef d'une certaine manière donc bu doon état wu Sénégal état bu gëm droit la. état buy jëfee yoon la mais ñoom dañuy jël décision yooyu ko ci donc mbir bi jarul sax di débattre assemblée nationale dañuy jëfe décision yi fi taxaw yi ne ñi dañ leen tooñ wala dañuy salfaañi seen ak ak yelleef nañuy defe yooyu. donc bu réhabilitation doon am soxlawul jàll assemblée nationale. non parce que Karim Wade mhm. soxlawul loolu am na décision bi nga xam ne daf koy jox dëgg. sur le plan international avis bi bu ñu paree émission bi demal internet nga liiraat avis wu c'est très argumenté et documenté mm-hmm. avis boobu xam naa ko parce que yàgg naa am ay clients yi nga xam ne ko donc groupe de travail bi moo leen libéré mm-hmm. donc xam naa ko conseil des droits de l'homme avant commission des droits de l'homme yàlla def na jotoon naa fa liggéey boobu gënoon naa nekk ndaw donc li ma xam la su ma thèse de doctorat maa ngi ko def sur la politique juridique de l'ONU donc euh, xam naa ci lu may wax xam naa aussi ñoom ci yan tànk la ñuy dox mën naa ko analyser en tant universitaire hmm. am ci suma point de vue ça n'engage que moi mais par contre tey comme lu ma la wax bu doon ñoom dañu leen a bëgg a joxaat seen àq ak yelleef jarul waaw amnistie hmm. jarul coow lu bëri jarul conseil des ministres jarul yëglu nañu jëfee dogal yi nga xam ne moom la instance yi jox hmm. muy Cour de justice de la CEDEAO ak groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. bu ñu ko jëfewee rek ñoom ñu retrouver seen droit. d'accord euh, on est à, presque à la fin de de l'émission mais duñu duñu duñu terminer sans aborder une actualité boo xam ne tàmbali na tey et d'ailleurs depuis huit ans ñu ngi koy amal euh, muy euh, le forum euh, international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. tey nag ñu amal ko fële ca Diamniadio comme les dernières années euh, thème bi l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes défi de stabilité et de souveraineté euh, défi de stabilité et de souveraineté stabilité justement c'est le mot qui attire notre attention mhm. souveraineté c'est c'est important des peuples sont sur cette voie-là di ko forcer di ko ñàkkante ak euh, les dirigeants mais quand on parle de stabilité est-ce possible wala mën na am ci condition yoo xam ne peut-être des dirigeants soit dañu forcer troisième mandat wala ñii nekk ci benn dynamique dictatoriale boo xam ne dañu am benn politique boo xam ne peuple bi bëgg ko alors moo leen fa teg dans ces conditions xalaat nga ne c'est c'est des possibilités yi mën a am waaw Euh, xam nga thématique boobu thématique bu am solo la. Mhm. donc euh, là ce n'est plus l'avocat c'est le professeur de relations internationales. <laughs> nga xam ne yàgg na gëstu ci loolu. maa la ko doon wax su ma. thèse maa ngi ko def ci ci mbir mbir bi parce que su ma thèse ngi ko def ci donc chapitre sept ONU bi. Mhm. Euh, donc mooy wax mbirum maintien de la paix et sécurité internationale yàgg a jàngale régulation juridique de la société internationale muy master relations internationales yi nekk fii. université master recherche professionnelle ak yeneen ci di gëstu ci àdduna bi nekkoon ci sax expert ci ay dëkk yu mag euh, ci mbirum question de sécurité yi mbirum terrorisme bi donc euh, loolu ban tey thématique bi thématique bu am solo la bu am solo la euh, mais nañu xool lu nekk ci ginnaaw thématique bi maanaam stabilité xam nga comme disait Hegel que justice se fasse sinon le monde périra bu ñu bëggee stabilité foog mbir mi dëkk yi tegu ci dëgg dox ci yoon tey boo xoolee stabilité dëkk yi ci sous-région bi la plupart c'est des pays francophones amul benn pays anglophone boo xoolee mm. ñoom woy bi benn la moom mooy gis nga boo xoolee ñu delluwaat ñaar fukki at ci ginnaaw boobu peut-être euh, ñu ngi doon soog a pare jàng wala ñu ngi woon nekkoon ndongo dara euh, gis nga ñu ngi doon génn ci coup d'état yi ay kéréku ay euh, coup d'état yu bëri ci sous-région bi ay Sierra woon Johnny Paul Nkrumah ak yooyu tout ça CEDEAO def première intervention yi ingérence au nom de la démocratie pour dindi leen hmm. ñu jàpp ne ponk ak sartu démocratie ñëpp ci war a wàccoo CEDEAO dem ba am protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie d'une certaine manière ñu ne constitution yi kenn waratu ko foowee gis nga pays francophones yi ñoom ñëpp limitation wu mandat bi mais ñoom ñoo ko ñëw dugal ko noir sur blanc bind ko yenn yi sax defuñu ko woon yenn pays anglophones yi mais ñoom lañ ko bind mais comme le temps est le meilleur juge bu ñu demee bay waaj a yegg ci njeexital bi ñu commencé interpréter di woy di def noonu gis nga ko tey Sénégal fii loi wu parrainage bi dama koy faral di wax dem naa ba CEDEAO ñu jox ma dëgg mais lu Macky Sall def 2019 wax naa maa ngi woon ci 27 candidats yi mais lu mu def loolu c'est un coup d'état sepp nit ñi même ci yaa ngi doon wax Bougane Gueye Dany mais lu ñu ko def nii ci élection locale yi mm. mais c'est un coup d'état c'est un coup d'état c'est que mooy ñooy changé léegi coup d'état yi nekkatul yor ay fital ak ay char de combat da ngay dem université xool say juriste tailleur jël leen teg leen sa wet wala ngay jël ay expert euh, voilà ci yeneen dëkk yi ñu jóge ci yeneen dëkk ñëw toog sa wet naan euh, voilà pour galgal ci fii ngay jaar porox ndoll baa ngi nii jëlal lii yokkal lii wàññi lii tout ça donc comme ña nga xam ne nag ñoom ñoo yor dëkk bi war ko teg ci dëgg ci yoon defuñu ko yeneen xeetu coup d'état booy ñëw parce que comme dafa am benn résurrection transmutation wu coup d'état maanaam coup d'état yi dañu changé ay melin mais ak ci ay jëmm fu ñuy jaar maanaam mooy yi nga xam ne moom la ñuy utiliser mais coup d'état la ba léegi mhm. donc yeneen coup d'état ñooy ñëw di répondre coup d'état yooyu gis nga ko ñetteeli mandat nit ñi dañuy ñëw coow li militaires yi ne pat askan bi ñëw gars yi force mais bu ñëwee du ñu toog gars yi dañuy ñëw dindi leen parce que tey ñoom dañuy dem ba dañuy nekk force bi nga xam ne moo mën a réguler le jeu d'une certaine parce que leaderu parti politique bu ñëw moom il doit dañ ko tënk statut il doit voilà exercer aller à la conquête démocratique du pouvoir mais ñeneen ñi ñoom ñooy arbitre yi donc gis nga ko tey ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ñoom la militaires yi di teggi d'ailleurs boo ko xoolee bu njëkk nit dañ doon def coup d'état mais kenn du bind lettre de démission mais tey ku ci coup d'état am mais da ngay bind lettre de démission ba pare féliciter gars yi moo lay wan ne nekkoo ci dëgg nekkoo ci yoon ñenn ñi sax dañuy soulager parce que ñoom dañ leen fay tënk maanaam dañuy dem ba seen entourage ñooy bëgg préserver seen intérêt. donc c'est de bonne guerre bu demoon ba force de l'ordre yi jël le pouvoir. non du bonne guerre xam nga coup d'état fu mu amee rek moom mooy échec u démocratie. li ma la wax ci laa ubbee waxtaan bi man dama gëm démocratie. ànduma ak coup d'état du mais dama lay wax lu am. xam nga coup d'état doo ubbi benn livre droit public bu koy traité. par définition c' est un phénomène ajuridique maanaam bu laalewul ak droit mhm. mais saa yu coup d' amee rek moom mooy droit maanaam euh, naxsaay na d' une certaine manière wala waxatu c' est un fait d' une certaine manière donc dama lay analyser lu am nekkul wax la de mais dama lay won mais coup yooyu tey li may militaires yi ay fit sañ-sañ ak légitimité d' une certaine manière parce que ñooñu dañuy xam ne tey dirigeants yi toog dañoo forcé toog mhm. mais amuñu soutien populaire militaires yi bu leen wóoroon ni bu ñu jëlee nguur gi askan bi génn dal seen kaw duñ ko jël parce que xam nañ ni bu ñu ko jëlee tam ñu toog mais loolu moo lay woon ne dafa am crise démocratique fii Afrique am crise de légitimité léegi nag pour tontu laaj bi stabilité bi nga xam ne moom la ñu jàpp mm-hmm. bu ñu bëggee stabilité am nañu xeex pour stabilité wu normes constitutionnelles yi d'abord problème yi ñu am Afrique de l'Ouest yëpp ci problème mu constitution la jóge ces dernières années donc mbir mi yeneen problème yëpp amatuñu ay guerre civile rebelle yi daanaka amatul ak yooyu tout ça mais tey ña toog ci nguur ji waroon di aar askan bi ndox ci dëgg teg ko ci ngor ñooñu ñooy dem di foowee constitution bi di réinterpréter di wax li nga xam ne amut loolu moo tax aussi tey mu am phénomène demoon nañ ba coup d'état amatul mhm. amatul ku sañ coup d'état même boo ko defee amoon na ay ingérence au nom de la démocratie xoolal fii Gambie ñun Yaya Jammeh dafa perte élection yi ne du dem Sénégal ñu jox ko mandat mu dugg dëkkam yóbbu ay militaire dax ko palem dëgg la wala dëgg parce que loolu tey dañu jàppoon ne norme la mais sa waay ci protocole boobu mu sukkandiku mais man dama ko yóbbu cour de justice de la CEDEAO Abuja ñu atte ñu lan la wax du ko jëfee kooku war na baalu Yaya Jammeh parce que Yaya jàmme ci boppam moom doon na respecter décision wu CEDEAO yi wax naa la nekkoon na avocat wu opposition bi dégg nga donc moo tax ma ne la bu ñu fowee xelu Sénégalais yi mais lu dul dëgg du yàlla hmm. d'accord alors euh, euh, lan ngay tàggatoo maître waaw xanaa di leen jaajëfal ci dalal bi hmm. euh, di nuyu aussi encore une fois mbokk internautes yi nga xam ne ñoo ñu doon suivre. Euh, aussi di leen wax ni en tout cas suñu candidature bi euh, candidature dëgg la. candidature responsabilité la. mais aussi candidature bi lu ko tax a jóg moom mooy jëlaat nit teg ko ci kanamu politique ak ci càppandal ba maanaam ci commencement ba ak ci fin ba d'une certaine manière. Mm. ba que tey fii en tout cas ku fi nekkati nit. maanaam sa xel dana mën a dal parce que di nga xam ne maa ngi dund ci état et que état boobu ndaam am naa ay wareef am naa ay àq te état boobu su ma tollee diggante dina ma aar loolu mooy suñu sensu engagement mm-hmm. maanaam man li ma gëm man ci àdduna di ci dox moom mooy loo yëngu ci àdduna njeexital bi dafa war a nekk rek maanaam euh, li nga xam ne day gën a rafetal day gën a euh, tabeel euh, nekkin ak dundinu nit D'accord. Replacer l'humain au cœur de, des politiques de développement.